mama ziarat na la mama delloo na la ziar babakar mama mama tay ñu ñew tay ci fi ci jàmm si Gàmbaaw fekk la mbeur yeb wër la ak population bi mama lu mu yek sant yalla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waji di sant suma serigne serigne sëriñ rahman bakki yalla yalla yobbi leen te taas ci barke ni kulifa diine kulifa aada yeb sant sama serigne baye Karim bakke fallelu bu baax baax di sant Serigne Sidi Mbacke alxuraan suma wasila suma xarit di sant ñëpp ñëpp ñëpp maanaam li nga wax ni awma ci lenn lu may def lu kontaan dama kontaan ñii iya, amel ma lenn lu ma fay dul ndam man dara ñoruma fu mu toll nii barki maam Serap ndam rek moom ñor incha rabbi dina am ndam. ma gis tey say mag teew fëgg la ñoom Balla Gaye junior ak kulifay mbëri gox bi yëpp ñëw teew ñoom loolu ban yëg-yëg nga nga am en tant que petit frère. non dama ci am contentement bu rëy barki maam Serap Fall ñu ngi fiy tudd ñëpp samay xarit lañ sumay xarit lañ barki maam Serap Fall te nag xew la gis say mbokk dafa neex te samay mbokk rek a fi nekk waaw ñu ngi may dooleel di ma jàppale di ma soutenir di ma lu ne subaak ngoon muy Balla Gaye Junior fëgal ak Abou Ndiassé Sitaak xam nga qualifié de gars yi yëpp dañ ciy jàpp. ay bul laal barki maam Serap Fall bëri gox bépp. bëri ay ay Soundiata Keita nekk nii nga jëm ci combat. combat bi nga jëm actuellement fim nek ni bo xolé 3 jours wala 4 mo ci dess est ce que mama fim nek ni physiquement psychologiquement mama pare na actuellement. non je suis pare man bama paré yag na man ma xaar lamb di entraîner man dama entraîner lamb fekk ma man damay dundal lamb motax man duma tok di xaar dara ci lamb damay dem liggéey def li ma war def li nga xamanteni ni ndam yalla suñu borom mo ma ngi ñaan yalla yalla ma yalla may ndam ci kaw bursi Bursin mu melni ni wala yow sax lay wax duggoon nga écrit bawal bang fa duggee yow kewel ngeen beure kewel yalla may ko ndam ci yow tay nga dugat ci même écrit bobu tay loy manam lolou lan lay def ci yow. non ma def dara parce que kewel mo ma daan kewel bu bursin kewel daan bi ma daan man moo ma def bëri mo waral tay may bëriwaat ak ñoom amul lenn lu ci rëgale lima bu yokul ko wursin amul lenn lu koy wax li sama man da ngay fayu wala nu muy demee allah amul fay ak ñàkk fay dama koy daal kattanu yàlla foo ko ci li ma ak sama jom ak sama ngor ak sama ful ak sama fayda xeexu bursin tiitalu la non non doomu gaynde la hmm. barki maam seera amul lu may tiit ci ñaar ku may ndam ku dàq bëre na yàlla may ndam ku dàq xeex yal na la yàlla may ndam ku gën a doon xale yal la yàlla may ndam ku ëpp fit na la yàlla may ndam ku gën a entraîné bari sëñ Fallou yal na la yàlla may ndam ko ku ëpp ay supporter non loolu kenn waxatu kon daal su ma la déggee yaa ëpp li lépp daa mel ni de dinaa kenn neew déet waay kër yi nii lañ <laughs> moom Medina ak Bawol est-ce que boole wu ko ah, ah. ah un mètre la rek looy wax say supporter ak ay supporter am ak ñi war a ñëw ci làmb ji dimanche ak promoteur bi ko tëgg muy Assane Ndiaye ah non damay woo samay supporter di woo ñëpp jàmm gën si kaaf baaxul ñëpp maa ngi leen di woo bàyyi ma kenn ñu daal bëre ñibbi kàttanu yàlla maa ngi woon ñëpp bàyyi ma kenn maama andi ma micro bi maama maama di li lay laaj nag fa la ñuy tëjee coow li daa bëri fan yi fuñ la gis gis fa sita sita Ama ciow li min tuleeg man la ci dekk bi sita Ama lu ci am maama di wax. non lima ci mën wax bari na. lo ci loñu ci ñamal. sita xalé la Siteu bëriwul ak Ama amul kenn ku Ama bëriwul ak sita du bëri kenn làmba boole. amna ñuy wax ne du combat de. non ba tarki ndaw yi mum ragalul dara barki mam Serap ba te bu ragalé lolu ma ray ko. nga ray sita ngir Ama. Eh, billahi ma ray ko. nda ak ciow sa xir lolu day dara ragalu ñu loolu barki mam Serap Fall bu deret bi de ben dañ koy bokk. ñun Siteu mooy suñu lépp ak lu mu mën a doon ñun Siteu lañ bëgg zem dañ ko bëgg suñu xol du ay àndandoo ak yooyu bu jëloon keneen ku dul Ama bu ñu ko jàppee dañ koy defaral. kon yow gëm nga Siteu yow gëm nga ne Siteu mën naa daan Ama yow. ak keneen ku dul Ama laa la wax daan Ama amul lenn lu ñuy tiit ci ñu ko li mu li mu mbër yëpp la am la am bu leen ko ëppalewul kon amul dara lu mu war a ragal ci àddunaam. kon yow validé nga combat boobu. non bu ñu ko doon kase léegi léegi maa koy signé man mi maama looy fecc dimanche. Hmm, loolu assuré la. maama wax ma li ngay fecc maama. kéwél kenn du ko laaj doy réer. maama da ngaa mën a fecc. Eh, bu si nee na bu fecc fecc góor. bu si nee ko moom paas bu génnoon ak njëg bi du fecc. déet waay. war na Serigne Touba. ah buur mën naa fecc. dina baax si di ay rawa ah soo nga ko indi. kon jeex na barke sëñ Fall maa ngi woon ak monsieur a maire. waaw Ndofène suma xarit suma yaay madame Sarr maa ngi ko woo waaw bis bi naa ko ci bu baax a baax a baax di woo suma xarit Fala may waalo waalo di woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci parce que bis bi suma bis man kese mais maa leen bu gën a bëgg barke maam Sera Fall te li ma ci sàkku leen rek la muy jël ndam jox leen ba pare seede leen amuma beneen stress amuma leen lu may dund lu dul làmb ji. loolu nekk sama maay kon maama. incha nañ ko fekke te tal ko. Talla Ndiaye maamaa ngi. jërëjëf borom Lamsaara ngi. maa ngi nii borom jàmm gën. Babacar <laughs>